journal si ñëw yu suñu tey di remercier tamit ñi ne fi ñëpp fekkee conférence de presse bi ñu teg ngir waxante ak sénégalais yi ñaari fan ay ñetti fan ci gannaaw le 3 janvier dañu bindoon benn bataaxal bataaxal boobu ñu bind ko sénégalais yi bind ko tam commu africain yi bind ko communité internationale bi mu tasaare ko fu ne nag te ci bataaxal boobu dañu doon dànkaafu di woo conseil constitutionnel ngir mu def yoon def dëgg ndaxte dañu gis ni ministre ministre ministre de la justice la Madior Fall moo tegoon yoonu fraude électorale bëgg ko tabax tabax fraude électorale mi ngi tàmbali ci naka la ñuy def ba ne Ousmane Sonko du candidat mu jóge ci loolu dem ci ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur bi nga xam ne bi ni war na tëdd njaaxandaay te ci yoon warul sax yore élection ndax bu ngeen xoolee ni Abdou Diouf comme Macky euh, comme Ablaye wadd dañu nangu woon jël personnalité indépendante jël ko ni ko jëlal nga nga jiite élection yi ngir élection yi aw yoon Macky Sall ñu laaj ko ko mu ni duma ko def duma ko def duma ko def mu jël ministère de l'intérieur boobu direction générale des élections jël jël jël dooleem takk jëb ju borom ni mag Ousmane Sonko du fi jëlee kayitu parrainage ñu jóge ci loolu ñaari juge moo tax damay wax patriote bu leen xaddi ndax amoon na temps ñu bare découragé ni dootul am mais ñaari jugement moo taxaw Ziguinchor ñu dem cour suprême avocat dégg nga euh, procureur général bi atte ni wax ni Ousmane Sonko dañ ko war a dugalaat ci liste ñu dem tribunal de Dakar ñu joxaat ko ay droit am ñu ni nag bi boobaa nag ñu bind conseil conseil bind ni conseil constitutionnel addinaa ngi lay xool addinaa ngi lay déglu tey jii le cinq janvier c' est un jour J bés bu am solo la ci décision bi ngay jël mu doon décision boo xam ne bi ñëpp a ngi lay xaar ñëpp a ngi lay déglu ngir nga def dëgg topp jugement yi nga xam ne teg nañ ko nga topp jugement yooyu def dëgg mais tey ñun conseil constitutionnel daf nu bett. ndax jàppoon nañ ni bu xamee ne Macky Sall jeexal na mu xam sénégalais yi fan la ñu teg Ousmane Sonko sénégalais yeeg jeunesse beeg góor ñeeg jigéen ñeeg mouvement yi fi ne ñëpp teg kii ni kii la ñu bëgg muy suñu candidat mu war a taxaw ni kon damay bàyyi peuple sénégalais ñu tànn ki ñu bëgg ma àdd àtte dëgg mais ñu jox ko ay dossier mu fexe ba ñu jàpp dossiers yooyu di ko lajbat ndax ubbi dossier boo xam ne dañ ko tëj candidat bu ne nga bàyyi ko mu indi mandataire mu représentant mu taxaw nga ubbi yow Ousmane Sonko nga ubbi dossier ci gannaawam ñëw naan leen ah, ah, dafa manqué te mu leer la ni yow dossier koyit yi comme ni ko président Habib waxee benn dossier manqué wu fi ñu ngi ya ñu ngi yaakaar nag ni après suñu ay techniciens yi suñu ingénieurs yi suñu informaticiens yi buxum ak dëngate yi ñu fi génne yépp fan yi passé fekk yaakaar nañ conseil constitutionnel dinañu toogaat xam ni fii kenn mënu fi nax kenn kenn mënu fi jaay doole kenn ñu ñoom ay sénégalais lañu ñu doo am droit te sénégalais ba jare bu ne da am droit wu tànn ki nga xam ne kii moom bëgg mu nekk mu nekk sa président en 2024 en le 25 février 2024 te kooku conseil conseil amul droit di ko xañ sénégalais amul droit di xañ sénégalais yi Ousmane Sonko nekk candidat ndax tegu ko fen surtout nag bi nga xamee ne am na ñoo xam ne ñu ñaari candidat lañu nekkuñu ci fichier bi te bàyyi nañ leen ñu jot ay kayit ba taxaw tey Sénégal conséquence waroon na def histoire ñeenti candidat ñi ngi ci prison ñeent ay junniy nit ñi ngi ci jeel ñi ngi ci prison bi kon tey dañ ko doon xaar feneen fu dul di boo ay police naan ñi gënal te teguñu ko fen kon nag ñi ngi koy ñaan juróom-ñaari attekat yi juróom-ñaari juge yi nga xam ne wax ji jeex na ñoom ñoo dese mbir mi ñu def dëgg jox Ousmane Sonko li nga xam li mooy droit wane na firnde yëpp wane na preuve yëpp ñàkk nag bañ a ubbi nga xam nga ne amuloo loo wax warul tere ubbi dossier yi nañu ubbi dossier yi te ñu def yoon. man nag dama nekk koo xam ne kii booba du mois de juillet ba léegi maa ngi waxanteeg bitim réew waxanteeg africain yi ci institution africaine yi. muy commission de l'homme des droits de l'homme et des peuples def nañu résolution le mille août 2023 di dànkaafu Macky Sall di dànkaafu état Sénégal nee na ñu def dëgg nañu bàyyi dóore bi nañu bàyyi reye bi nañu bàyyi tegg yoon bi nañu respecté constitution sénégalaise te nañu bàyyi Ousmane Sonko mu nekk candidat mu nekk tamit ay ay kuréel yi dul jeex ci àddina bi taxaw bind ko wax ko duma leen nommer mais ñooñu ñëpp tey ñu ngi xool Sénégal mais nag ñu ngi leen di wax ni rek bind rek dayatul tey taxawaay moo de dégg naa ñu ne Union européenne ñi ngi préparé ñëw fi mais ñi ngi leen di wax ne Union européenne mu ngeen fi ñëwee na ngeen fi ñëw ñëwu dëgg ak taxawaay duñu nangu kenn di ñëw ba jour du scrutin aw yi aw mbir yi ay aw na ñoon élection processus la élection dañ koy tàmbalee fa candidat yi di taxaw ba bisu vote ak fa ñu natte fa ñu watee waññee kon nag bu dee ñoom dañu ne dañuy xool képp ku ni da ngay xool ngay institution africaine ngay président indépendant ngay état tàmbalil xool di xew Sénégal tey nga ŋaañu ko ba ñu dégg ko loola sénégalais yi di xaar dinaa ci sànni rek ay baat ci anglais I would like to